gis nga gis nga yooyu nag yàgg na fi ah. Hmm. ah oui oui. Ablaye Wade maa ngi fàttaliku en 88 histoire créé loon nañ ko fi benn benn dossier de toute pièce il faut xale yi xam loolu. dañ nekkoon campagne électorale 1988. boobu sax moo gën a bonati. Euh, ñu jékki-jékki rek dagg temps d'antenne yi ñu joxe rek juboka ñu def ko ci lañ ko commencé tuddee Djibo Gros Plan. Mm-hmm. ñu teg ko à mu jël un air grave muy Sénégal dafa mucc ci ay attentats terroristes. Mm-hmm. Ablaye Wade moo indi ay terroristes libyens. Mm-hmm. jàpp nañ leen ak ay explosifs ak ay arme à ñu doon waaj a def coup ab Abdou Diouf. en pleine campagne électorale ñëpp seen moral damm. mais ñu teg loxo Ablaye Wade ñu arrêté campagne bi. Mm-hmm. en pleine campagne électorale lii tarixu Sénégal la bu yàggul. Mm-hmm. xale yi fekkee wuñ ko parce que bëri nañu judd après 88. Mm-hmm. bu ñu arrêté campagne bi yàlla mi dara tëwul jabaru Ousmane Ngom dafa doon liggéey Air Afrique xam naa xale yi xamatuñu Air Afrique benn compagnie ah, panafricaine la woon. léegi ci liggéeyam mu gis ni billet wu yi Jean Collin moo ko jënd présidence moo fay biewu libyen yooyu ñu jàpp ñu joxe ko journal soppi bu PDS publier ko loolu moo yàq complot bi kon complot na li tax ñu taxaloon PDS mhm. li tax ñu taxaloon PDS c'est parce que Ahmed Khalifa Niass mhm. est que xam nga membre fondateur u PDS la mhm. ah bon Ahmed Khalifa Niass mooy titulaire de la carte numéro 19 du PDS c' est la dix huitième personne membre du PDS après Ablaye Wade. Ahmed Khalifa Niass mii ku jege woon Ablaye Wade la donc léegi bu ñu jàppee un membre du fondateur du PDS. mu ànd ak ay libyens moom ak libyens yi la ñu jàppandoo woon mu ngi sol trois pièces bu gris. ñu mën a teg ko nii ci gannaaw maa ngi fàttaliku image yooyu. mos naa ko fi wax mu weddi ko ma revenir à la charge avec des archives parce que maa ngi archives yi maa ngi preuve yi may wax. mais dañu yi journal télévisé ñu teg. ci benn table ni ay armes ak ay explosifs ak yooyu ñu ñu teg ay Khalifa Niass fii ak Ahmed Khalifa moo doon symboliser le PDS ñu ni PDS ñu ni PDS dee mais imagine bu jabaru Ousmane Ngom gisul woon bie yooyu ba ñu xam ni présidence moo jënd billet yi kon kenn du mën ak dindi ci bopp nit ñi ni Libyens yi PDS moo leen fi indi parce que jàpp nañu koo xam ni PDS la bokk euh, ak ay Libyens ak ay armes kon loolu doyoon na pour suul PDS. mais mais mais ah oui, may ma rek may ma rek léegi loolu. mais histoire bu rocambolesque la. après ñu tëj libyens yi ak Ahmed xalifa ñas jàllale wuñu leen euh, mandat de dépôt de xam nga ñaata temps la ñu def gendarmerie. 45 jours loolu mës nga ko gis. nanguwuñu leen jàllale prison cinq jours seeni repas di jóge savana euh, euh, savana bi nekk bi bi nekk ville. hôtel savana waaw après ñu mujj leen libéré. libéré après Ahmed xalifa Niass bàyyi mu sedd noonu la ci PDS muccee kon complot yàgg na Sénégal kon tey jii bu ñu nee Ousmane Sonko entreprise terroriste loolu daal na fi am. mais mais am mais am na ay faits yoo xam ne nag ñi ngi fi parce que diggante mars 2021 ak tey jii li fi faatu ci bakkan li fi yàqule li dugg kaso li génn réew mi. Mhm. yooyu yëpp mu ngi fi loo xam ne tey dañ ko dund. kon loolu lépp tey jii dañ koy jël teg ne rek na léboon léppoon amoon na fi jaar na fi dem na quoi. ci àddina loolu moo waruta am nag maanaam amnistie bi ngay junj loi d'amnistie bi ngay junj amnistie warul effacer cas yooyu yëpp nga xam ne dañ ko war a toppee nguur gi parce que au ni déjà commencé na ko toppee nguur gi moo tax ma ni la loi d'amnistie bi nguur gi eh, pour nguur gi la gën a nekk que pour Macky Sall nguur gi nguur gi di ko toppee sonk no nguur gi mënul toppee loolu sonk ah mais charge yi ñu teg ci kawam non yooyu ay charge yu ñu inventé la parce que ñoom dañu dans seen ci seen communication ñoom dañuy faral di wax ne nit ñi dee ñëpp Sonko moo leen rey mais loolu yow gëmoo ko kenn ku ñuy seetaan gëmu ko parce que tey jii Sonko mu ngi ci kaso bi ñi dee àjjuma kan moo leen rey Pastef moo woote. non non moo jël décret boo xam ne kenn àndu ci mois de juin 2023. Mhm. lan moo indi problème bi. mooy décision de justice justice ni. Ousmane Sonko de mënuñ la topp viol mënuñ la topp menace de mort waaye ni juge bi toppee ko corruption de la jeunesse verdict boobu la population bi rejeté avec violence kenn woowul kenn. verdict bi dafa génn rek dëkk bi tàkk. kan moo taal dëkk bi le magistrala là bi génnee verdict boobu nga xam ni ça fait l' objet d' populaire comme décret bi ni mu defee l' objet d' un rejet populaire. Mhm. ci juin mille vingt et boobu gis nañu quand lu ëpp cinquante pick-up yu weex tàll. jóge siège u APR yëpp ay nervi ba fees ñuy tiire ci population bi loolu Ousmane Sonko la gis nañu présidence mu commandé ay munitions ay balu fetal ay millions de munitions colonel Adama Gueye bi nekk présidence gouverneur du palais moom moo signe certificat euh, attestation de destination finalu munitions yooyu mais léegi loolu est-ce que mës nañ ko gis ci présidence de la république muy commander ay munitions loolu musta am c'est illégal maître Moussa Diop wax na ko fi ñu tëj ko kaso mais il a raison on a les preuves te noonu la demee. léegi léegi cocktail molotov yi foo koy dugal. ana cocktail molotov kan la ah, ah? Ousmane Sonko dañ ko jàpp cocktail molotov Sonko dañ ko jàpp. ñoom ñoo ko wax non attendez information démb euh, am na benn journal démb bu ma gis ñu ni euh, découvrir nañu ci forêt mbaaw bi mm-hmm. benn arsenalu cocktail molotov. wax ñu jàpp nañ ko ci nit bi de. Hmm. ci forêt mbaaw bi nee nañu trouver nañu foofu arsenal cocktail molotov léegi loolu après mën nañu ni sax Clédor moo ko fa dugal wala keneen moo ko fa dugal pour taxal ko loolu du lu yenu maanaa et puis cocktail molotov. Hmm. Euh, du acte terrorisme. grève 68. Hmm. ba événement 88. Euh, cocktail molotov lu ñu tàmm utiliser la ci manifestation di nga ko gis France di nga ko gis feneen di nga ko gis partout. mais loolu taxul ñu classé leen terrorisme kooku du arme c'est comme xeetu lacrymogène yi ñuy jëfandikoo mais loolu moo gën a bon cocktail molotov yi parce que kooku mën na mën na mën na mën na rey euh, quelqu'un qui a des difficultés respiratoires mm-hmm. am na ay projectiles ñu ay bal yu ñuy dóor ci booy yi ñuy dee loolu du cocktail molotov mm-hmm. mais pourquoi nit ñi bëgg a woyofal ñi nga xam ne dañ leen dóor bal ñu dee di attardé wu ci ay tuuma yoo xam ni de toute pièce la ko nguur gi inventé mm-hmm. alors que ñu ngi teg suñu bët ay nervi yu ñu armé ba mu fees fi mu nekk nii ñemeetuñu leen génnee parce que ñëpp a leen teg bët fi mu nekk nii parce que dafa am lu xewoon ba noppi am rapport bu ñu ci def ak liggéey bu ñu ci def mais gis nañu quand même 4 yooyu après ñu làq ko ci dakaar dem dikk ñu filmer ko nii mais gendarmerie ak police amu fi yow yow ay 50 oto yow moo mënul jàpp nit xanaa mën nga jàpp sax oto fii ku fi def dara ñu ni la taral. kon yow looloo tax àndoo ci amnistie bi loi d'amnistie. non amnistie bi xamaguma lu ci nekk. mënu mënuma mënuma ñàkk ànd ci loo xam ni xaw ma lu ci nekk parce que duñ ko génnee tey conseil des ministres rek ñu voté ko waaye tey yaakaar naa ni euh, à partir de vingt heures au moins danañu xam lan moo nekk ci loi d'amnistie bi. mais tey jii bu ñu dem waroon dem. élection tey jii mais ma daaneel parce que loi si bi. Mhm. bu fekkee ne day amnistie ay fait yoo xam ne nguur gi la concerné loolu dafay leeral ni ñoom seen bopp tax a jóg parce que léegi am nañu euh, majorité bu bees. Mhm. léegi nag pour couper la poire en dañ ciy profité waale euh, détenus politiques yi peut-être même pas tous. Mhm. Euh, pour indi benn accalmie ñoom ñu prox loolu waale ci dem ci loolu nag la ñu war a moytu te loolu bu amee euh, PDS ak Benno Bokk Yaakaar surtout PDS moo ñu ko yóbbee parce que moo permettre. Macky Sall am une majorité confortable à l'Assemblée nationale je bi PDS dugg léegi amnistie li ci mm. grave mm. xam nga déggoon nga fi loi Ezzan bu ñu ñëwee après dañ koy réviser waat dañ koy dindi affaire yooyu mm. Macky Sall sax diggé woon na ko fi. Mhm. mais euh, revenir ci amnistie moo impossible. mënul ne. dafa impossible. Mhm. su possible mais loi Ezzan abrogé nañ ko mais loolu diggé woon nañ ko ci campagne 2012 bi Macky Sall di falu wala da ko fàtte. oui bien sûr. waa léegi ñoom lu ñu ciy xaar mënuñu ko xam nga lu tax parce que dafa am benn clause bu nekk ci loi d'amnistie. mooy il est interdit à tout magistrat. tere nañu bépp magistrat mhm. à tout officier mhm. tere nañu bépp officier et à tout fonctionnaire ak bépp fonctionnaire de mentionner verbalement ou par écrit mu màndargaal ci kàddu walla ci bind implicitement ou explicitement ci lu leer walla sax ci lu ñu jund les faits amnistiés kon même junj bi sax mhm. dañ ko tere tere nañu magistrat yëkkati ko te nañu officiers yi enquête yëkkati ko maanaam magistrat yi lay jugé di la condamné. Mhm. tere nañ leen ko officier de police yi ak fonctionnaire yëpp tere nañ leen ko ba noppi prévoir ñaari disposition du code de procédure pénale boo xam ne mooy dal ci kaw ku jéggi tere yooyu. Mhm. loolu moo verrouillé bépp loi yi nga xam ne duñ ci mën a dellu si gannaaw loolu mooy clause d'intangibilité wu loi d'amnistie moo tax. Mhm. bu ñuy voté loi d'amnistie dañu war a xool exposé des motifs yi war a xool visa yi maanaam délits yi nga xam ne moom la ñu visé parce que tey bu ñu nee. Karim Wade dañ ko jàpp pour délit financier euh, enrichissement illicite nga xam ne loolu kenn xamu ko suñu arsenal judiciaire mm-hmm. mais Khalifa Sall dañ ko jàpp jàpp pour escroquerie sur les deniers publics mm-hmm. et cetera et cetera léegi ñu ni lépp li nga xam ni concerné woon na Karim ak xalifa Sall xam foofu mën nañu fa prox loolu pour amnistier les délits financiers léegi léegi ñu ni ñoom ñaar lañ ci visé képp koo xam ne def na euh, détournement de deniers publics wala enrichissement illicite de telle période à telle période amnistier de mm-hmm. léegi loolu bu amee nag suñu rapport Covid 19 bi fu mu jëm suñu surfacturation yi fu mu jëm suñu yeneen dossier financier luuba li nga xam ne fu ñu jëm 73 dossiers yi nga xam ne Seynabou Ndiaye Diakhaté transmettre na ko procureur balaa muy def passation de service fu mu jëm jalgati yi am foofu yëpp fu mu jëm ba ci Bougazelli yi sax ay phobie yooyu mën nañ ko ci laawaale. Mhm, parce que ay crime financier la. crime financier la. donc moo tax ñu war a def attention ci loi d'amnistie il faut ñu xam ni loi d'amnistie bu ñu ko ci dellu gannaaw. moo tax may pointé responsabilité PDS may majorité qualifiée euh, euh, euh, Macky Sall. mais léegi parce ah, tey jii Macky Sall na mu defee lu ko neex ci décret noonu la mënee def defee lu ko neex désormais ci loi ak assemblée nationale. lool mooy li bees ci Sénégal loo xam ne dama bëgg attirer ci attention ñëpp Macky Sall am na une nouvelle majorité qui lui permet de faire n'importe quoi ci weer yi ko fi bi